waa facebook asalaamualeykum waa àddina asalaamualeykum Gambia asalaamualeykum Sénégal tey nag dama génn pour def vidéo bu gàtta ndax euh, ku ne xam na ne suma followers si géej nañ gis ma def vidéo ci suma YouTube channel bi euh, du dara nag dama nekkoon tukki rek moo tax ma gijj a def vidéo te fii boo fi nekkee network bi du dee baax ma gis loo xam ne mu ngee go on fan yi ma bugg a def waxtaan bu ndaw ci about uh, yëfi moo yi di xew nii ak lay xew Vegas right now balaa daray xew damay waxtaan ci mbiri africain ni ñoo dundee ñun africain nag nii rek la ñoo dundee ba ñun africain ñu ci toroxalante ñun africain ñu ngi ci waxtaan nit di ko record li gën a bon ci àddina mooy ngay waxtaan ak sa moroomi doomi aadama nga jël mobile di record boo paree jël tas ci àddina ñun africain kañ la ñoo wante bu toogee du ñemee waxtaan ci jamono biñ nekk nii bu ñuy wax téléphone du ñemee waxtaan ndax koy waxtaanal yaa ngee ragal ne li may wax ak yow kat bu paree mu ngi ca mbedd ba ndax yaa ngi ragal ñu record la yaa ngee ragal ñu pare ñu wa jël nga seen nit whatsapp ñu pare ñu fowat ko keneen yàggee xalaat lu nekk te ñun waroon naa mun a neex ci suñ biir ñuy waxtaan di kaf di ree nekk ci suñ jàmm ndax ñun ñëpp ñoo bokk waaye ñun africain ni buggu ñoo gis kenn ci lu baax buggu ñoo kenn gis kenn ci bànneex ñun daal liñ bugg a gisante ci suñ biir mooy safaan ba nit ku nekk ci problème nit ku nekk ci naqar nit ku nekk ci fitna te nag eendewuñu tubaab bi fitna aidé wuñu tubaab bi problème aidé tubaab bi mu ñàkk xaalis aidé wuñu tubaab bi dara lu du jàmm ñun ñi nga xam ne ñooy black ñooy nit ñu ñuul ñun ñoo aidé wante lu bon ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais ñooy gambien ñun ñoo aidé wante lu bon eh Allah nañ leen ñu bàyyi wante suñ xel ñu dellu si waat àddina jeex na ba pare ngiiroo ngaaroo gi ma gis ñi on social media gis ko ci YouTube gis ko ci Facebook gis ko ci tiktok jaru ko fi te loo bañ dee fekka la ca war nga koo bàyyi balaa dee di ñëw ndax dee ñëw na ba pare ku gis àddina ni mu demee ci deux vingt gis ni mu demee ci deux mille vingt et mu demee ci twenty twenty gis ni mu demee ci twenty twenty one nga xam ne àddina jeex na ba pare dara desatu fi lu dul ñu déglu woyu Sooda Buso ba mu woyoon ne na rafet bu baree jeex bu néewee jeex na lépp rafet wallaahi na rëpp rafet may advice suma broda moo Gates man moo Gates am naa chance pour mit ko moo Gates Babacar Diaspora moo ma boole woon ak moom bu yàgg ca ogos may wax ak moom mituma ko ba novembre ma dem déj Atlanta ma mit ko fa bi ma mitee moo Gates Mo Gates ba mayuma dërëm waaye lim ma may moo ma dàqal ay million may na ma respect may mar jàmm nekk nit ku ubbeeku nekk nit ku baax waaye moo géet man dama lay advice as brother ndax xam naa ne yow nit ku baax nga yéene yi du ko dee woot yéene yi jaru ko moo géet nit lu am am alal lu am am ay millions lu am am ay milliards moo géet am nga mbokk yoo xam ne soxla nañ ko lii nga nekkee ci jamono gii sénégalais yi di la ko wax nit yi di la ko wax jaru ko fi du forcé Macky Sall mooy président du Sénégal li li ngaa def nii defu ko te mu ngi ci jaama fi mu war a def xaalisam bi mu ngi koy def yow da nga oote ne da ngay maye bugg a dimbale wax dëgg a neex yàlla dimbale jarul li ngay dégg nii dimbale jarul sa private life yépp nekk ci biti dimbale jarul problème yi nga nekkee nii yépp moo génn lii jarul ko fi yow am nga sa xaalis you have lot of thing to do with your money demal nga bil ay hôtel Sénégal demal nga bil ay hôtel Mali demal nga bil ay hôtel Gambia demal nga bil ay hôtel Abidjan foo def business mu dox sa xaalis bi da nga koo jël di ko may sénégalais di ko may africain yi doo mës a dégg jëf wax ju ñaaw lañ lay wax ndax africain xamul wax nit lu baax wax yu ñaaw ngay dégg te moo gën yi ngay dégg fan yii loolu mooy lu ndaw li man dama ko yàgg a wax. moo gën bu ma doon yow ki may jël ne moom mooy ki ma bugg dëgga dëgga dëgga mooy Ketchup booy bi nga xam ne moo mun a taxaw Instagram nga taxaw mu wax la dëgga those people yi ñooñu ñooy nit ñi nga xam ne ñoom ñoo la bugga ku mel ni Gris Sougou ñii ñoom ñoo la bugga waaye ñii ñëw sa boor yëpp di la jay di la jay di la jay di la jay ñooñu bugguñu la liñ bugga mooy sa xaalis xaalis bi bu fa te moo gën billaay wallaay tallaay di nga jooy fu dara nekkut dinga jooy fu dara nekkut dafa am yoo xam ne jaru ko àddina bi dafa jeex ba pare àddina bi jeex na ba pare dara desatu fi nañu rafetal yépp nga dem toppatoo ci sa soxla proof nga ci sa àddina wane nga sa bopp àddina bi yépp toll nañ jamono boo xam ne moo gën moo gën moo gën moo gën moo gën moo gën doy na fi mu nekk nii demal nga defi leneen toppatoo sa soxla te sa digganteeg Babacar Diaspora nga bàyyi ci xel because tey ñu bari ñuy ñëw ci sa boor di ñëw ci sa boor moo géet moo géet bi ñooñu Babacar Diaspora moo tax nga xam yu bari boo amee Babacar Diaspora problème na rafet wax bi bari nag dëkk baa ngee toj te yi ñuy wax yépp du wax yu rafet yi ñuy wax nit yépp wax yu ñaaw la nit yi di dégg te moo danga am ay mbokka am ay nijaay am ay bàjjen am ay tanta am ay dëkkaale te ku nekk bugga nga say mbokk a dégg ci yow wax bu rafet sa xaalis yaa ko moom yaa ko liggéey nanga ko amee ni kenn nekku ci nanga ko jotee yooni kenn nekku ci yaa ngi cee def lu war ni kenn nekku ci jëlal sa xaalis nga def ko into good use nga toppatoo sa soxla bu fekkee da nga foog ne africain yi nekk ci Europe bi nga bugg a satisfy billaahi wallahi tallaay sa der mooy yàqu te doo leen mos a satisfy te loo am di leen ko jël jox leen ko te duñ la mun a mos a wax jërëjëf ndax africain du dee wax nit jërëjëf dika baa ngee toj saay boo ubbee internet bi man lii dama ko waaj ba sonna ne il faut ma def ko vidéo bi il faut ma def ko ndax àddina baa ngee tukki àddina baa ngee tas wax yi bari na yi ñuy wax jabari jàmbur yi ñaaw na yi may dégg àddina toj na yi ñuy wax jëkkëri jàmbur yi ñaaw na Sankara Mbaye borom njaboot la yi ma dégg ñu ko koy wax ñaaw na njoletaal borom jëkkër la yi ma dégg ko koy wax ñaaw na langa gi tas leen ko ngeen dem toppatoo ci seen soxla du tere yépp pour mu rafet ndax am ngeen jàmm yéen ni neen te nit yu baax ngeen yéen ñi nekk Vegas ñëpp nit yu baax ngeen yéen ñëpp xam naa leen yéen ñëpp am naa ak yéen relation bu baax ñëw naa Atlanta fekkal leen fa ngeen nekk ay nit yu baax fexe leen ngeen juboo seen biir muy Babacar Diaspora yow muy Awa Balde yow muy keneen ak seen biir ngeen nekk ci seen jàmma bu leen xejal kenn te li gën a ñaaw nag ci àddina mooy nga ànd ak nit ba moom nga ne di nga ko weer te loolu laa gis ci jamono bi dangay ànd ak nit mu neex boo leen àndaatul rek nga ne di nga yàq àddinaam loolu rafetut accaleen ñu bàyyi loolu ñu ànd rafetal moo gën broda moo géet maa ngi lay wax e génn sa xaalis bi jël ko nga def ko ci leneen moo gën yi ngay def rafet na waaye doo ci dégg njaaraama te doo ci mos a dégg njaaraama liñ cee dégg mooy nit ñi dinañ lijjante noo amee sa xaalis bi foo ko lijjante noo ko amee loolu rek nga ciy dégg waaye bu fekkee da ngay xaar pour dégg ci jërëjëf ci gémmiñi africain yi wallaahi moo géej maa ngi lay wax ne la te lii ma lay wax nii dama ko yàgg a wax ay nit yu la jege yi ma waxoon yépp nit ñi gis nañ ko te man ñi ma jege mun nañoo wax ne li Aliou Sarr di wax nii dëgg la ñi ma jege mun nañoo wax ne lii may wax dëgg la man lii yépp dama ko yàgg a gis lii yëpp dama ko yàgg a wax suma ay jege ñaaneel because luy dem nit yi xam nañ ko luy continuer nit yi xam nañ ko kon broda moo ngi toppatoo sa soxla nga def leneen toppatoo sa soxla nga nekk ci yeneen sa xaalis bi nga invest ko Africa nga impale nit ñi ñu liggéey sa xaalis bi mu jur moo gën li nga def rafet na xaalis yi nga maye rek bari na waaye doo ci dégg njaaraama maa ngi leen di tàggu di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp yal yàlla raxas xol yi yal na yàlla defal jikko yi ci barke maam Baye Niass Mawlaana mbooloom lu ma fi wax loo xam ne xawuta teggi ne maa ngi jégalu te xam ne ni tamatul maa ngi ñaan suma flowa si ngeen siyaa vidéo bi ba pare ngeen subscribe suma YouTube channel bi ngeen siyaa ko ak seeni friend jërë ngeen jëf yéen bokki Sénégal yéen bokki àdduna Cheikh Mouhamed Ibrahim di borom xam-xam bu mag bu kenn dul naa taple ci wàllu ñaan seet maanaam asraar ak wàllu fajum cosaan Cheikh Mohamed Ibrahim mu ngi nekk ci Nord Foire ci wetu yum yum bi téléphone am 77 187 61 34 Cheikh Mohamed Ibrahim lépp lu jëm ci wàllu ñaan demal seeti ko ndax moo ci sut fii ci biir réew mi wàllu seet mu jëm ci wàllu asraar demal seeti ko ndax tubarkalla macha allah lépp looy nëbb la mën na ko génne ci wàllu seet ak ñaan ba mu leer nañ da soxla wàllu gàllaak ngir aar sa yaram seetil ki nga xam ne mooy Cheikh Mohamed Ibrahim borom xam-xam la ci mbirum samp nit wala gàllaaju kër wala mu jox la daraja ju mat sëkk ak bayre seetil cheikh Mouhamed Ibrahim loolu mbokk yi moo ma ci doy fii ci biir réew mi cheikh Mouhamed Ibrahim numéro téléphone am 77 187 61 34 77 187 61 34 képp koo xam ne da nga bëgg a tàggalikook cigarette wala sangara wala lépp lu jëm ci wàllu sineebar bu nit di jëfandikoo mu lay tàggaleek sa sago seetil Cheikh Mouhamed Ibrahim mu dind ko ci lu gaaw a gaaw ndax kat wàllu woow amu ci moroom te tolloowu cog nit fii ci biir réew mi ku rab jàpp wala ku mënta am doom wala ku néew kàttan ci wàllu sëy seetil Cheikh Mouhamed Ibrahim mu am ci xam-xam bu mu jàng ba mokkal ko lool mu ne ci moom teg ci it mu koy pratiquer ci lu leer nañ Cheikh Mouhamed Ibrahim ci xol bi baax ah mbokk yi mu ngi ci biir réew mi képp ku ko soxla demal ci noor Foire seet si ko ci wetu yum yum bi téléphone am 77 187 61 34 77 187 61 34 Cheikh Mouhamed Ibrahim fajkatu cosaan bu mag la tey faj bu mu gàcce yi daw leen seeti ko. yéen mbokki Sénégal.